waaye ku ci bëgg am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05. Euh, man bu jigéen nekk ca Dakar Actu boo xam te ne nag euh, ba mu tey woon ban doon euh, déglu kii di activiste bi di DJ Malick di nekk nag administrateur bu page Facebook bi di lutte contre l'indiscipline au Sénégal moom nag soxna soos di caméra woman caméraman bu jigéen policier nag dañ ko daal di bunduxatal ba sax nee neen dañ ko daal di gaañ ba mu nekk l'hôpital jamono ji mbir moom nag Synpics ñaawlu na ko bu baax a baax di sàkku ci kilifa yi lu ñu mel bañ a amati nee neen sax dàquñu